nekkal ci li la war tey muñ doyloo yàlla te bul def kenn lu bon bon yàllaay maye yàllaay xañe njariñ ak lor ci moom rekk lay bàyyikoo te ku maandu la te nga xam ne li muy dogal ku ci àndul faaw mu sonn yal na nu yàlla dolli sutura defar sunuy xol ñu bëggan